non mais par Rodrigo quand même gars yi Rodrigo après ba mu amee problème Messi ci discussion bi non dañ ko doon yooxu yooxu doggaloo traité code de racisme oh là là salaam gars yi bégg naa leen nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant képp koo xam ne abonné goo ci sama compte bees bi abonné la tey di like ñëwaat na ci lieu bi ngeen tàmmoon a gis mu ngi noonee jàmm ak salaam alhamdulilah namoon naa leen trop trop trop ak fii waaye ñëw ci kooku di Rodrigo gars yi liñ ko def dafa ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ci benn anime boo xam ne ni ñëpp ñu ngi koy ñaawlu képp kuy jour noir képp kuy amateur de foot noir ak képp kuy nit yaa ngi koy ñaawlu après ba mu amee coow kooku di Lionel Messi ci biir terrain bi ñu sànni def ay kàddu yu xaw a ñagas ci noonu nag euh, dafa génn ñu commencé di ko euh, dénigrer ci réseaux sociaux yi di ko saaga di ko yu traité de golo lu ñu def ko ko ci anime bu ñaaw boo xam ne nii moom moo daan defal Vinicius waaye bi am na lu ko métti ba sax génn na ba ne eh, lii nga xam ne nit ñu ngi koy def ñoom noir yi ah, lii mën a may doole ñenn ñi maanaam mooy ñoom ñu toog croiser les bras mais buñ continuer di prouver di wane seen bopp ñoom it dañuy gën di sonn ci li nga xam ne ñoom ñu ngi leen koy def kon nag ñoom ne nañ amuñu frein waruñoo bàyyi nan continuer ci li ñu nekk nii puisque ñoom ah, mën naa ni matuñu ñun ñu jéem di mottale suñu bopp gën a avancer liggéey wane preuve yoo xam ne ni seen xol yi dafay gën di dagg mu génnee kàddu yu bëri bëri bëri yoo xam ne ni eh, jot na ko posté kookee di ah, Rodrigo ñoom amuñu droit arrêté nag loolu day gën a may doole ñi nga xam ne ñu ngi leen di dénigrer di leen wax wax yu ñaaw mu ngi noonu ma leen xaar ci commentaire ko gisee loolu vraiment a baax a baax a tax ngay jël ab noir di ko traité de golo yu mais bi da ngay reeba tas quoi vraiment man daal man ma leen muñ yàlla ma yàlla jéggal joueur Lionel Messi ñëpp ko bëgg joueur bu exceptionnel mais nga coow moom ci terrain loolu mënul ñàkk ku ne def na ko fi Ramos def na ko fi tant d'autres joueurs Pepe mais rien il noir mais après ñoo dañuy souffrir quoi mais c'est c'est malheureux mu ngi noonu gars yi Tomiyasu joueur Arsenal bi Bayern mi doo ko bëggul waaye mu ngi dëggal di assurer rassurer que ni kookee di Tomiyasu toog foofee ca Arsenal moo gën a jege mu noonu dafa jógee te it ñoom dañoo am jaakaar ci moom ba tax nag dafay toog foofee ngeen xamee kon noonu mu ngi noonu gars yi looloo nekkoon xibaaru tey jii képp xam ne abonné ko suma chaîne YouTube duggal suma bio TikTok mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé ko la ci seetaan vidéo bu ba beneen yoon ci yeneen i merci à vous jaajëf. Fassane eh, eh. sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif eh. xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu avec mon la quoi ñëw far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waa. la famille. mais Bamada. walaay ndeysaan lan nga wax. walaay ndeysaan. walaay ndeysaan kese. donc continue comme ça. incha allah merci. yàlla baax na bii laa soxla ah. après daal la nga

Thank you. نؤمن بهذا الحديث أسفا منا ولما نجعل

Bye. ak dégg ngeen yàlla def ay Sinois. ngeen mokkal alxuraan dégg ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. si yaa tur macha allah. yàlla yàlla def ay Sinois. def leen ay Thank you.